août 1968 6 août 2020 boobaak léegi mat na juróom fukki at ak ñaar ba fi Serigne Fallou Mbacké bàyyeekoo nekkoon deuxième xalif général des Mourides boobaak léegi nag xaajub xarnu la waaye Serigne Fallou Mbacké des ba léegi ci xolub jullit yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di taalibey murit yi loole nag bàyyeekoo ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko fi waaye nekkoon jëmm ju yaatu lool mënoon a dimbale doomu aadama yi selloon lool te bari xam-xam sell googu nag mu jëlee ko ci ñaari waajuram di sëriñ Touba Mbacke ak soxna Awa Bousso sëriñ fàllu Mbacke mi ngi gane àddina ci atum 1888 ca Daaru Salaam dëppoog guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab di anniversaire guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane woon te bi muy ñëw mu indaale julli juróom waajuram tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi gi nga xam ne da ko bëggoon lool jox ko turu Mouhamed Fadal mu jàng alxuraanul karim ci sëriñ ndaam abdourahman loo ci daaru alimul xabir ñu naan ko ndaam jàng na it ci sëriñ Mamoor Jaara mi nga xam ne mag la ci waajuram wa di sëriñ Touba. bi sëriñ Touba di dem ci géej gi ci 1895 sëriñ Fallou mi ngi amoon daanaka juróom ñaari at mook magam ja di sëriñ Mouhamadoul Moustapha ñu dénk leen maam Thierno Birahim mu taxaw leen bu baax a baax ci seenug njàng ak seenug yar ndax sëñ Fallou sax daan na ko wax naan maam Thierno jàngal na leen bañ ne ar yar leen bañ ne nër wàllum xam-xamam am na ci lool Serigne Touba ci boppam moo ko ko jàngal jamono yi nga xam ne mi ngi nekkee ci Mauritanie ci bërëb bi nga xam ne moom lañ naan xomaag Serigne Fallou Mbacké ne woon ko maîtriser woon lool langue arabe mën a bind nekkoon calligraphe boole ci nekk taalifkat bu mag ndax bëri na ay poème yoo xam ne bind na ko. bi fi waajuram wa bàyyeekoo ci atum 1927 Serigne Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy magam nekk premier xalif général des Mourides Serigne Fallou Mbacké ànd ak moom déggal ko ne Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke moomu moo ko jox ndigal ci atum 1928 ngir mu dem aji màkka defal ko waajuram wa di Serigne Touba na nga xam ne noonu la ko bëggee woon te yàlla suñu borom dogalul mu def ko Serigne Fallou Mbacke bàyyeekoo fi ci ndigalu magam jooju ànd ak yeneeni kilifa dem ca màkkatal mukarrama loole sax moo tax bi mu ñibbisee ci réew mi ñu ko daan wax alaaji fàllu ci atum 1945 sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke bàyyeekoo fi wujj suñu borom sëriñ fàllu Mbacke nekk deuxième xalifa général de Mourides wéye la liggéey bi nga xam ne moom la fi magam ja bàyyee woon te nekk lool bëgg-bëgg seen waajur wala woon muy jumaay Tuubaa ji cheikh Mohamad Fadal Mbacke def ci yitte mu jaraloon ko lu ne ba jumaa ji daal di taxaw ne carrière bi nga xam ne moo nekk ndokk te fa daan jëlee doj yi daan dem ci jumaa ji Serigne fàllu moom moo ko lijjanti Serigne fàllu Mbacké liggéey jumaa ji ba mu àgg ñu inauguré ko ci 7 juin 1963 ci teewaayu kilifa yu bëree bëri ci réew mi jumaa ji mu def ko juróomi soroor ba ca gën a mag mu dëppee ko Lamp Fall di ci sargal maam Cheikh Ibrahima Fall bésub ubbiteeg jumaa jooju sax Serigne fàllu moom moo jiite àjjuma jooju def fa xutba gu am solo lool sëñ fàllu liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ci lotissement bi urbanisation bi waaye taxawal fi marché Ocass bu Touba raay bi nga xam ne gaar bu mag la yemoon Serigne fàllu indi ko ba ci gaar bu ndaw ngir matériel bi nga xam ne moo daan dem ci liggéey jumaa ji mu gën a mën a yomb mu taxawal fi forage ngir jàppandal taalibe yi cim ndox jëmm ji nekkoon baykat bu mag ne bëri na loo xam ne danaan bàyyeekoo ci mbay mi daka daan defaat ci liggéeyub jumaa ji noonu it la sancee ay dëkk yu bëri ñu mën caa jàpp ndindi aliya Touba Bogo Madina Mbooba Touba Marina Naylul Maram Sëriñ Fàllu daan fa yar taalibe yi daan leen jàngal ak tarbiya borom ndindi nekkoon ku yaatu mënoon dimbale doomu aadama yi daan taxaw ci seeni yitte ndax daawul tas yaakaar jubóowoo nag yàlla suñu boroom ba lu mu ñaan mu am taxoon na ñu naan ko boroom na am mu am boroom du am du am alaaji fàllu amoon relation bu yaatu lool ak mbooleem kilifay yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo daan yëngatu ci wàllum politique rawatina président Senghor sëriñ fàllu mbàkke nekk ki nga xam ne moo njëkk woote màggal Touba indi ko fii ci Touba ndax bu njëkk ku ne da daan màggalee fam dëkk sëriñ bi nag daal di koy yaatal ci atum 1947 li tax mu wooyewu leen wut dara ci wut dara. leen di wut dara ci dara. kon naa ko sàkkal waxtu kon. ne bu fekkonte ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal waxtu barab bii ne kon du nekk banaa nawet mu def ko. da leen di woo ngir topp ndigalu sëñ Tuubaa. di leen wan na mu toll woon fi moom. ak di leen wan na mu toll na ndigal li toll woon fi moom. ni ngeen dikkee nag neex na ma lool bég naa ci. ni ngeen dikkee nag neex ko lool moom sëriñ bi bég na ci. maa ngi maa ngi gërëmal sëñ bi bu baax a baax. mi ngi leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax. na ma waxoon mooy ni ngeen def. ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy lii ngeen def. da koo santaane woon nag. santaane woon nag. booba mi ngi fi di ko doxal. booba mi ngi fi di ko doxal. doxal na ko diir bu gàtt. doxal na ko diir bu gàtt. yàlla te mu dikk fii. yàlla te mu ci barab tedd bii. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk itam. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk itam. na ko doxal. doon ko doxal. waaye moom yàggul. moom man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag. man mii nga xam ne ma fi nekk léegi nag. damaa damaa def koo xam ne ngottu ma. damaa def koo xam ne kii ngottu ma. bëgg naa rek. bëgg naa rek. mu yaatu yaatu goo xam ne. mu yaatu yaatu goo xam ne la mu ci la mu ci bëggoon. la ci sëñ Touba bëggoon lépp. mu am ko ci. am ah, mu am ko ci. la mu ci dëlee itam. la mu ci dëlee itam. ñëpp am ko. ñëpp am ko. ndax bu ma sañoon. lu baax laay am. lu baax laay am. mag ñëpp te bokkoo ñëpp te bokk ko ñëpp. moo tax bis bii nga xam ne. moo tax bis bii nga xam ne. sëñ bi da koo santaane. sëñ Tuubaa da santaane. muy sunu bis. muy sunu bis. dama bëgg ñëpp di ko fekke si. bëgg ñëpp di ko fekke si. bu ko defee. bu ko defee. lanu ci yaakaar ci moom. lanu ci yaakaar ci moom. mu bëggal nu ko. moom itam mu bëggal nu ko. daana ko am na mu ko bëggee ci noonu. dinañu ko am na mu ko bëggee ci noonu. dama bëgg daal. damaa bëgg daal. di nga xamee ne. di nga xamee ne. waa penku gële. waa penku gële. dañu fay daje ji. dañu fay daje ji. te lu tax ñu mën faa daje. te lu tax ñu mën faa daje. ci kaw jàmm. ci kaw jàmm. dañoo am kiiraay. dañoo am kiiraay. ma bëgg sow tam itam. ma bëgg sow bi itam. mel ni penk boobale. mel ni penk boobale. ci kaw kiiraay nii am. jëmm ji nekkoon ko bëgg Serigne Touba lool te yemelewu ko woon ak dara ak dundam yépp taalibe la defoon boppam daan liggéeyal waajuram wa ne dafa jaayoon njureel gi jëndee ko ak taalibe te loolee ca la nekk ca lay dox ba ni fi bàyyeekoo le 6 août 1968 ji suñu borom ñu denc ko ci penk jumaa ji Serigne Modou Moustapha Mbacké Fallilou ñu naan ko Serigne bu sa Dieng moo nekk premier xalifaam bi ko wuutu bi mu fi bàyyeekoo ci atum 2000 Alxaaji Bara Mbacké Fallilou nekk xalif waa kër Serigne Fallou nekkit sëtub Serigne Touba bi njëkk a doon xalif général des Mourides ci atum 2007 bi fi Serigne Saliou Mbacke bàyyeekoo alxaaji Baara Mbacke Fallilou bi mu fi bàyyeekoo ci atum 2010 Serigne Abo Baraka moo nekk xalifa njabootuk waa kër Serigne Fallou di wéy la liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la fi waajuram wa bàyyi woon ak magam yu tedd ya loole lépp mu ànd kook mbooleem njabootuk Serigne Fallou gi ak taalibe yi di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool te wér.